محمد صلوات الله في أبد عليه اسمي كل بكرة أدعو إلى الذي عمد مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برار نجات جلاء وما لك حرماني قدر ما عادل وكل لي من الخنبرية رمان وابل جميع الخلق رمتاً من يغني عيني شريعا قرآن قرأ أمة المسافة عن كل ما سدات ولترحم الخلق يا من جادهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا هاديا ردى محوت ما قد نهى القلب من ضرار بجاه أفضل من لله قد لجأ liwal kabiru ما لا يعبر من اللوحاء من خبير لو الكبير ما لا يعبر من اللوحاء هبا أورابي خل وهيبي مع المحابي صف ما هو طلالي مع ضلالي منمي حلالي بلا انتهائي مدح المقافى عمري يا سافى وقد سافى لباعتنائه دام اغترابي عند ترابي بالاغتراب والعناء ينوس كاري إلى شكوري على سكوري صرف سنائي إلا التقي ليس شاخي باب الرقي يمحو ندائي لم ذنبي داعي لقلبي أو داعي سلبي أو داعي دائي خير الإبراهيم عبادي لسقدائي لك تهور منك المهور لك الظهور يوم الخفاء يا ذا الكتائب لخير تائب لغير تائب منك الشفاء لك حروفي منك صرافي مع الورافي يا زلوها لا إله إلا الله لا إله إلا الله يلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله فعل bil lii ngay gërëm di seet di cant rek kenn ku ne tudd la ko fi di tudd ay jarbaatam di tudd ay rakkam yu góor ak jigéen di tudd nijaayam jee nga xam ne mooy borom kër gi sëñ du Faye cant bu ne sant na ko ak dëkkandoo yi kon loolu baax baax ndax boo nekkoon ci leneen am amaa nag dañ la ci fekk waaye am na ñoo xam duñ la ci fekk te it loolu ji demee nii yi nag sabab ba kilifa yu tedd yii bu bés bi lool di ko nësër ba di ci tàbbi si ndax sëñ Abdou mii Mbàkke mii xam naa ne man tey lañ fi daje daaw nekkuma fi waaye maa ngi fi woon du tax gannaaw ñaan gi bàyyi ñu xor làq ko ba tey maa ngi ko door a teewe ren waaye at mu jot sama ngi ci da daaw ñu waxoon ne fas nañ yéene ñaan ci sëñ Fallu ñu teewe ko waaye lan ñu tombe loolu nga xam ne mujj nañu faay ko ba kere ci bés bi ci bëccëg laa ko yëg amoon ndigal ni groupe bi ñu defoon bu téléphone nga xam ne lépp luy jàll fi dama koy teewlu ba asamaan set lépp lañ fi déggoon wala lépp ñi yéegoon tàbbi lañ fi kon sëñ bi dolli ko na ci kon loolu yi mooy ak yokkute sëñ bi nag baatub sama tey junne day gàccee sama démb sëñ tubaay démb sëñ tubaay tey day moo ko gën a yees gën koo kawe loola moom du deñ waaye murit bi bu ngee gis loolu ci boppam pas-pasam lay dolli su ko dolli rek sëñ Tuubaa fekk ci kon dolli pas-pas góor bu baax a baax nag sëñ Abdoulahi Mbàkke sëñ Abdoulahi Fay di xanaa taw fi sëñ Tuubaa waaye Cheikh Abdou Mbacké mi lay xam na jëmm ji feggoo ko yow fii miin nañ ko bé tànk bu fa gën a tuuti xam na ko sëñ Tuubaa taw lañu ko taw féexe goo xamante ne luñ ci wax lan bàyyi ko ëpp ndax seere dogalub sëriñ bi loolu kat day dolli taw rek waaye du ko wàññi noo ngi sàpp ci sa jëmm ji sëñ Ibrahima Mbacke sëñ bi Mbacke nga ñaanal ñu ko mu gën a fay yàgg moom te gën a lu tax day loo xam ne bu lu mu fi gën a yàgg ñuy gën a jëriñu yi sama toog ak ma leen faratale fu ñu toll ñu di ko ñaanal de ndax dox yu ci réew mi bari na waaye dox ñu wuute na sànq daa am lu mu doon waxtaane ba mu ne ko yaaram day guddi fee jëmbat fii la nga jëmbat mën naa lax doog a jébbi waaye leneen mën na ko caa fekk waaye jiw fii ba mu meñ nga wit doom ba jiw suuxat bu saxee amul fan fu mu jëm lenn dong la loolee nag su ko waxee mënees na ko misaal fu bari tund wi bi mu fi tàbbisee dafa boole ñëpp ñuy benn ci jëmmam bi xam ni njabootu suñu tubaab gépp benn la amul kenn koo xamante ne daf la caa benn daa di xam ne ne daf leen yónni say ànd liggéeyal suñu tubaab and liguel seigne touba ak daire les koy def te loolu wér la loolu suñu gay Gaynde Faatma ma ci seigne fan bu ko jox ndigal te 1945 toog naa alaaj baar di ko waxtaan kon loolu yi nim ko waxe noonu rek la wére waye ban ko defé tak ko def wenn say gis nañ ni barab bi tundu wi yokk nu yokk goo xam ne ku fi ne mën nga kaasal li fi nekkoon ak li fi nekk lii jamono woo wuute na su nga njaboot sa wet ni ñu doon taxaw di jàng si kër si buñ kurélee yëkkati xasida kenn koo ci yemal mu yëkkati daal di a ma daal léegi sa kanam di daaj xasida mënuma daal di si kër nekku fi woon ndigalam loolu yi moo ko fi indi li ma lan nag ñu dimbali ci moom loolu laa lay biral rek liggéeykatub sëñ Tuubaa la boo xam ne jëf bi dafa feeñe fii ban yëg ko baax te xam te yow ak bokki taalibe yi noo ngi leen di leen siyaare leen balu àq leen baal àq tey ñaanal sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom gën ko fee yàggal mu ànd ko wër di ko ñaanal sëriñ Amdi Moustapha Fall moom nga xam ne tey moom waaye way juróom ma sëriñ Moustapha sama kilifa waaye di sama wëllëre ñooy daje fu nekk ci biir njaarim ba ca way wa sëriñ Moustapha Seen Abdoul ak sëriñ Salihu mi nga xam ne moom itam way jur la ko man dama nekkoon ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sama maam sëriñ Abdoul Akram Mbacke liggéeyloo na ma ba tey ci biir kër Sëriñ yàggale na xam lool sama ndaw ba nii mu làq ma am lanteeg sa way jur mu doon ku baax di borom xam-xam di ko joxe cër la ay way ak i magam ñëpp ko gërëm ku sëñ Moustapha Abdoul Akram wóolu ko wóolu lool sëñ Mustafa, lu bare ngi nii loo xam ne sëñ Moustapha sëñ Abdou Lakram bu ca mënta dem sax moom la cay yebal moom mooy juróom moom bi daje nañu ci bés boo xam ne sëñ Moustapha ko yebal mu ànd ak sëñ Abdou Fatah Mbacke moom sëñ Moustapha Abdou Lakram sëñ sëñ Mountakha la wax sëñ Mountakha am sëñ sëñ am man say waajur ab sëriñ dee su ko xam waaye xam naa leen bu baax kon gise bi tey nag yow oh, noo boole suñu bopp ci njaboot bi noo boole suñu bopp ci njaboot gi tey fas leen tey ñëwal na bu baax gannaaw loolu nag noo ngi sax ñaanal ñi fi bàyyeekoo te bés bii di seen bés ñu di leen jàngal alxuraan yàlla na leen yàlla nangul ñaani gaa yu baax yépp barki borom Touba ñi fi des itam tàmbalee ko ci seen jibril nii ak rakkam yàlla na leen saa borom taxaw bu baax a baax lépp luñ bëgg ci liggéeyal ko sëriñ bi ak ñaanal seen wéyu yàlla na ko suñu borom def. di sant bu baax sëriñ Abdou Faye mi nga xam ne moo dëkk Makka xam naa bu diggee tax. di borom pastef lol aha kay aka sa ngo di borom pastef lool keur gi kërama njaboot gi njabootama borom keur gi ko waxon momit mi ngi koy jifé bis bi sa buñ ko tambalé waxtu mu mu doon bu ñëwé daan ko fi fekk waye ñim fi fekk du bari danaka daal ko fi ñëw mom fekk ko fi kon da fi teel lool te bu ñëpp la may bayiko fi amna lu ko fi téyé ba légui kon moy njabot gi nga xamné moy njabot sëñ bi ci boppam di nijaayam nijaayam dafa ma dem ba xam ne ngant am na wóolu naa la ci te foofe mooy dar ñel ci man kon sëñ Madiba Faye mii eh, nañu ko jàng boo xam lu mu doon am na lu mu doon di bu baax noo ngi sant bu baax itam nag eh, sunu jëwriñ sunu lépp nag sëriñ Fallou Sène ci pësteef bi ak bëgg gi ak bàyyi faale gi bu bàyyi faale bu baax ñu xam ne sëriñ bee jàll baax waaye lu gën baax amul baax moom buñ nee baax rek baax nga kon sëñ ma euh, sëñ maamu jërëjëf sëñ Ablaye bu yal na xam-xam bi yokku nga gën a wër gën a am kattan xasida yi nga gën koo man fuuf xasida wu jàll ci xol bi rek beneen daal dikk te gaaw lool nag sa njàng aw na yoon ni ko sëriñ bi bindee képp nga koy jàng ni ko mag ñi daan jàngi rek nga koy jàng galub Touba Njoxooba gi la 2 janvier la di bésub altine mel ni kon altine bii ñëw bu dellu see bu dellu si waat lay doon kon noo ngi leen koy fàttali ndax fàttewu leen ko waaye noo ngi leen koy yëgal ndax yëgle gi mooy dëgg waaye fàtte moom fàttali moom daanaka yéen fàttewu leen ko bañ di leen ko fàttali kon noon ngi leen koy yëgalaat sëñ Mbacke Fall moom sëñ Modou Mbenda daa waxoon ne màggalu Touba li muy rëy rëy rëy kenn du ko fàtte waaye sëñ Abdou Lahad mii da koy yëglewaat kon nit noo ngi koy yëglewaat kon bu subaak jàmm bëgg nañoo def benn turne bu gàtt jaar nii jaar ci sëñ Abo fii ci Mbacke koy jaar ci sëñ Madiba mii daal di dem Ngayo Xeem buñ fa jógee nag dañuy wañe ko waat nag ndax. jaara fii ci jandum dellu siwaat fii daal delluwaat njoxooba loolu it li noonu mooy dafa am euh, liggéey boo xam ne dañ koo sumb ba léegi te àggagul ña nga ca fi mu toll nii ndax nawet bi jeexagul te la wér dëkk ba am na fa bari ñax lool te warees na koo bay baratu ko ndax gan ñi bu ñëwee am foo xam ne dal yi ñuy dal ci àll bi euh, dañuy nekk fu set te loolu dara tàmbaleeguñu ko fa. lolu motax ñu ñu bëgg ko gattal bu suba ci aljuma ji ñu lolu dal delu wat njoxolo te it dañu am ay programme yoo xamne dañ ko tambali fii gaaw ba ñi ngi wara tambalé tàmbalee njaañ def tournée boo xamne day jëm ba salaw manam ay paale nag njaxaaxo ak kër njuga ka nak yoy yëpp ba dindi dimanche lay jeex te gaaw lay tambali kon suba la aljuma ñu tourné fii dellu njoxo ba tàmbalee ko gaaw ba jëm noonee waaw loolu moo tax ñu gàttal ko ndax bés bi dafa jege si lool fukki fan fukki fan ak juróom benn ci des ah, ak juróom fukki fan ak juróom waaw fukki fan ak juróom benn ci des la tey la 15 loolu moo tax bés bi nag noo ngi koy def noo ngi ko fas yéene def nañ ko daan defe rek ngeen waaje ko noonee sëñ Ablaye ja nga daan àndal nga ànd ak ñoom daal di teewe si ca bés ba sëñ sëñ Mamour soññal nu sayidina Omar khadim gaynde ak borom Touba gogo soññal nu ko bu baax baax la ca des sëñ ma diba mi ngi ci sa loxo la ca des mooy sëñ fallu seen programme ba yaag sëñ Abo ak sëñ Jibril nii kon nag jawri ni yëpp teew nañu noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nañu gor lu ci ak talibi bi lenn lu génn ak talibi amut ci aduna bëggante soppante wóolante tey dimbalante te xam ne Serigne Touba mboolem ñu mu bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp a ko xam te bàyyi ko xel te kenn ku nekk la tàmbalee ci alxaaji Malick jàll ba ci bu kunta ci Njaasaan ba ci Seex Saadi bu kenn ku nekk mën naa laa wax ay waxam ci Serigne Touba. te kenn ku nekk ci ñoom ñooñu moom alxaaji Maalik Sëriñ Maru Bëggey wax nañ doom Maru Bëggey Tiwaawan gii la dëkkoon waxoon na Sëriñ Maru Bëggey ko Maru Bëggey dama laa bëgg ngir jëmmi yàlla ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye yow Sëriñ Maru Bëggey dama bëgg nga seere ma fi Sëriñ Tuubaa ne ko bu ëllëgee loolu la ko waxoon su ëllëgee ba mu ma fàtte daal di wut gëléem akub sëfam jox ko sëñ Maru bëggee na ko yotal ma ko sëñ Touba sëñ Maru bëggee ko indi fii ci njariñ loolu Alxaaji Malik def na ko bu ci Njaasaan yëkkati woon na doomam soxna Ami Kunta da dina sëñ Tuubaa mii day mënuma koo xam waaye ki tax ma am ci moom lii ma am ci moom kat moom laay jox sama doom ju jigéen ji muy Cheikh Ibrahima Fall bu Kunta yëkkati doomam ja Seex soxna Ami jox ko Cheikh Ibrahima Fall mu jox ko sëñ Modou Moussa Fall mu jur ca benn doom ju mooy Cheikh Ami loolu lu wér la Cheikh Sadibou waxoon na am na benn taalibeem boo xam ne dafa waxoon Cheikh Sadibou ne ko yow Cheikh Sadibou yaay sama yaakaar man nag man mii dama bëggatuta ànd kenn ku mënul ci jamono ki fi man rek laa bëggatee am su fekkente ne nag yaa man gaay sa digganteeg sa borom leeral ma ko ma ànd ak yow su fekkente ne am na ko la man nag wax ma ko ndax bëggatuma ànd ak ku fi mënut Cheikh Sadibou ne ko maa kana fi kana fi ne bu ne ko yaa ngi nii nee nga yawa alhaaji malik nee na mooma cheikh sidiya nee na mooma am na ku ñuy wax ahmadou bamba ci njaareem nee na mooma mu daal di ne alhaaji malik ku gëm yàlla la ku am ngërëmal yàlla la koo xam ne kii ku gërëm yàlla gërëm na la daal di ne man mii di seex sadibu walliwu laa boo xam ne lu ma ñaan sans mu defal ma ko sama taalibe bu mënti doon mbaa ku mu mënti doon dim juri soo ma liggéeyalee mën naa la caa feye loo xam ne ba ci say sët ak sëtaat du jeex mukk waaye da nga cee boole ku bokk tinu mu ne ko kooku ku mu doon mu ne ko danga maa tudd tudd Cheikh Sadibou da ngaa Cheikh Sidiya tudd Alhaji Malick daal ne ñii ñëpp da nga koo tudd waaye ki nga tudd te bokk ci nun mooy Xaadimu Rasuul mi nga tudd mu ne ko lu mu wuuteeg yéen mu ne ko yàlla bi mu dajalee ruu di leen wér naan alastu bi rabbikum kuy seen borom ruub ba jëkk a wax ne balee xanaa yow mooy ruub rasulullahi sallallahu alayhi moo tax moo fi gën ku dul rasulullahi rasulullahi la moo la gën daaye daat ne booba nag leer gu mag nga fa nga xam ne dafa leer nañ ñi nga xam ne falan ko fekke nun xamul ñu bañ ko sàkkee kañ la nee na leer googee mooy Serigne Touba bokk ci nun daal di ko wax taalibeem boobu ne ko foo Serigne Touba foo ko fekk maa nga fekk ñoñom na nga leen wormaal loo am na leen ko jox siyaare leen ko daal ne ko ko bañ ci kaw suuf boo demee ci biir suuf da nga ko fa soxla loolu Cheikh Sadi bu wax na ko taalibeem su loolu jàllee Seydina Jibril daa dikk di wax ak Serigne Touba sëñ Mouhamadou sëñ Modou Moustapha toog mu wax ba noppi daal ne gees sëñ Modou Moustapha ne ko li nga bëgg ma ñaaral la ko ma defal la ko Serigne Touba jëkkantu foofu ne sëñ Modou Moustapha ne ko ak taalibe ne ko ak taalibe mu ne ko ak taalibe mu defal ko ko dem mu ne ko xam nga kooku ku mu doona mu ne ko déedéet mu ne ko kookoy Seydina Jibril kon ak taalibe lu am solo la nanu bàyyeeg ñii ak jamono te sax ci noonu ak taalibe noonu adduna ba adduna yi jeex lu fi gën mbàkkeek faal dootu fi am te mbàkke du moroomu lenn bari na ci internet bi ñoo xam ne li ñu leen di wax lépp dañ caa bokkut te noonu nu am saas bokk ci loolu loolu ndaw ñee tax ma di ko wax nañu moytu internet bi ñi ngi xas mbàkke mbàkke yi ak Baay Faal yi ak sëriñ si ñoom dañ caa bokkut loo xam ne sa maam mosu caa doon dara sa baay dikk mosu caa doon dara nooy def doon ca dara ñi dem Arabie Saoudite jàng seen téere yooyu Arabie Saoudite yooyu dellu siwaat fii ci réew mi nga xam ne ñàkk ya rekk teggin ñoo ko ëpp la ci jamono ñoo bëgg a dem nag ba mu yàgg ñoo xam ne axlu mbàkkeeg tariqa yi nga gis nii mooy jàllale nit ñi ci biir àjjana ci ñoom ñu doon waa axlu sawara kepp na tax ndax kat sa moroomub jullit mag mu toll ni Serigne Touba lépp lu mu yëlif lu nekk nga xam ne li mu tagg ci Serigne lim Rasulullah Serigne Touba li mu ko tagg amul kenn kenn 7 millions 7 million yi daje Makkatal Mukarram 7 milliards yi daje Makkatal Mukarram 7 millions yoyu ci ay doomi adama wala ay milliards amu ci kenn ko tariikh benn tariikha bo xamne tag nga lu xaj lu toll ni seigne touba lim ko tag amut kon nak koku ak kenen ko xamne dafa bokkal dafa bokk ak mom rasulullah sallam ñepp ñom ñooñu muy murit ba muy tidiane ba muy layen ba muy ñeseen ba kenn ku nekk kële fi indi nga xamne ñom ñoom buñ boo Tidiane da nga nan Cheikh Ahmad Tidiane Sarif boo nee xadri yooyu da nga nan Cheikh Abdoul Xadri jilani yonu murit Serigne Touba ñoñu nga xamne nak ño fi indi tariqa yi tariqa murit mom Serigne Touba ko fi indi tariqa senegal senegal Serigne Touba la bu Senegal la wax de senegal. gi Serigne Touba la ndax mboolem tariqa yi nga gis yeb amna fu ba dëkk ci réew mi waaye ba fii moom sëñ Touba kon mag ñu baax ñii li ñu fi def ba aar nu fii ci jamono ci jamono rawatina Sénégal yow nga juddoo ci réew mi mage ci réew mi dem jàngi dellusiwaat ba nga xeeb ñooñu da nga caa bokkut te kat am naa fekk boo gis day niru walliwu lu kenn du fi jang lu gën lu fi seigne Touba bind kenn du ko fi jang bo demee ba makkatal mukaram wala arabi Saudi kasih seigne Touba yi ñanga fa waye dañ ci bokul nak dafa am mag mo xamne dafa dik ci seigne Abdou Lahad siblaat di ko xool ba mu yàgg mu ne ko man nak amna luma jaxale mu ne la jaxale mu ni nga doone mbokum serigne Touba ak ni nga jegee serigne Touba ak ni nga xame Touba te doon murit mu ne ko kon yow xamoo sa bay loolu la wax senyumlah, la munu ko nga munu ko xamoo sa bay kon daal di ko ne bañu dajale roy ci la bok sa borom di nu wér di wax alastu bi rabbikum joju neena besub bésub top na sa bay di ko ñaan muy tan rek manan ko boole ma ci muy tan rek ma di ko ñaan nan boole ma ci muy tan rek ba ma di ko yelwaan di ko yelwaan nee na muy tane rek ba bàyyi ma fi tanuma daal di ne xanaa xamoon ne murit yi koo gis mu doonu murit ca booba lañ ko tànn moo tax am na ñooñ bokkuñu ci lu ñuy mën di wax ci jamono nañ leen bàyyi noonu rek te xam ne ñoom bokkuñu ci loolu rek la yàlla nu Serigne Touba dimbale xam naa ne guddi na waaye li ñu bëgg rek mooy ñu xam ne waxi Cheikh Ibra Fall rek Cheikh Ibra Fall dafa wax sëñ du Mbenda na ko sëñ Modou Mbenda mu ne ko Fall mu ne ko na ngeen saytu barabub sëñ bu mag ba xam xootaay ba ni mu toll fi suuf sëñ Modou mel ne ko waaye bu soobee yàlla day faal dara te ko xam mu ne ko xam nga lu ma ci jublu mu ne ko déedéet mu ne ko damaa bëgg su ma demee ba def loolu ñuy wax wàccub liggéey sama barab na gën a xóot ndax man Cheikh Ibra Fall suuf rek laa war a féete moo waral faw ñu ne ci kaw rek ñu ne fi suuf ak ak taalibe boo xam ne nangoo woo fare fi suuf bàyyi mbakkee ñu ne ci kaw sag taalibe bi nak dafa dess lu bari nañu bàyyi gaañ yi ñuy dir mbak duñu ñom te duñu ñun sondel buy tak ak bu takkagut bokkut dégg ngeen ko te bari na kat ci serign si ño xamna ñi buñu gisé gisee gaañu mel nii balaa ñu ak ci ñom mom mi sax dañ koy wan nako man serign la ko yow ba nopi serign koy xam duñ ko wax ñew bu jub serign bi wan ko ne man serign la ba nopi sokko nuyu ci jëfin wi ak doxin wi rek la ko nga koy wane serigne bi da koy xam te ñu bare ngi ni duñ ko xam nañu xel lool gis nga ak taalibe gisuma lu ko gën Cheikh Ibrahima Fall mo daan yoral bopum aw semeñam di dem ci all bi di liggéey di ñew ben ngo mam Cheikh Ibrahima Fall mo dan rotal boppam ndal yi yendoo liggéey fanane root gaay yi nelaw ba naan xureet baluy ganar di gorgolen moko xewal dawul doxi lii Cheikh Rafa la ko def waaye nag fu mujj la dare ndar ba ndakaaru ba jàll gannaaw yoonu saxaar mbir mu rëy mu ñu naan fi kaar Cheikh Ibra lay laaji pexe te jamono jooja xoolal fa mu tàmbalee mas nay xibaar ak njébaloom ba wax ne yàlla mi ko moom moo kon ne Bamba la moom raasi ko jox ko say pexe yàlla la jëkk a gis Serigne Touba maam Cheikh yàllaa ko tegtal Serigne Touba Serigne Touba def ne mas nay xibaar ak njébaloom be wax ne yalla mi ko mom moko ne Bamba la mom rasi ko jox ko say pexe moy seti ko ci la top yon wajew ñew tay ba Dakar gis fa señ sëñ Bamba Sil top señ Bamba Sil ñetti at di gis leerug Bamba ci señ Bamba Sil ba mu yag señ Matar Touré ak Cheikh Adama Gueye fek ko fa mu dat ne menen Bamba da am mi ñu ne ko wa mu nek damay gis leerug señ Bamba ci mom mi kon lan motax kon leerug señ Bamba nek ci waji man lolu moma jaxal nekete boba sëñ Bamba sil mii dafa war a jur ñaari doom yu jigéen kii di sëñ soxna xari mbaram ak soxna xari daaru kii moo war a jur sëñ Abdou Samad Mbakkeem señ tubaa kii moo war a jur soxna may Mbakkeem sëñ Touba ñaari doomi sëñ Touba yi di leer ci biir sëñ Bamba Syll te seen i ndey ganee gunu àdduna Cheikh Rafa gis loolu Cheikh Rafa gis loolu. loolu ko fa téye woon ba mu fa jógee ànd ak Cheikh Adama Gueye ak sëñ Matar Touré tuumal nañ ko fi ay tuuma yu bari yëg ci kaw garab daanoo ak addi ay kii a jëm yëpp amut Siapa Ibra Fall garmi la woon ku jàng alxuraan ba xam-xamee bay wax ak alxuraan dafa ada ak topp ci Cheikh Adama Guèye nag ak Matar Touré wala tax mu naan gis na fa Cheikh Adama ay mbiram dal di koy ngoy mu won ko bam bam bari mu rëy sëriñ ba naan ko foo fexe mooy foo jóge sëriñ bi wax ko la fa moom mu wax ko ya fa Cheikh gis na ko mu mu ay mbiram dal di joxe soobu far ba jiitu ndax keroog guddi keroog la jiitu ñëpp bambaane kii ëpp na leen leeram gu rëy gii wér na leen fu mu tollu xol bay nox noxe wax na ne tuuti kon mu dem waaye fekk sëriñ bi lem ay mbiram waaye nee ba kenn du jot ci baatinam la jul ca bés bee ñuy taxe gis nga sëñ Tuubaa ak Seex Ibra kenn du leen xamee fii ëllëg lañ leen di xam xam nga fi ni nii murit yi daanoogunu murit yi daanoogunu de ndax ki ñu ne sëriñ xam nga léegi la ñu bañ sëñ Tuubaa yàlla la am na sëriñ su koy bañ sax bi kii ne damaa topp tànkub yàlla xanaa kon war nañoo wax ak Cheikh Ibra ñiy bañ ne sëñ Touba bañ ni tudd ko naan yàlla yàlla xanaa kon war nañoo wax ak Cheikh Ibra Cheikh def ne damaa topp tànkub yàlla ci Mbàkke Kajoor la ko waxal damaa topp tànkub yàlla ba mu dugg ci sa biir gisuma mu génnaat te yàlla képp laa soxla nee ma tànk baa ngee ma waaxu wuuti yàlla man yàlla képp laa soxla waaye sëñ Touba néewu ko tànk baa ngi ba tey tànk ba Cheikh Ibra Fall gis muy tànk bi yàlla ba mu dugg ci biir sëñ Touba génnaatut ba fi ñuy waxtaane waaw kooku fu ñu koy romb kon ñi doon ñi ñiy wax naan ba di bañ loolu fu ñu koy romb kon ñaareel ba mooy sañ Mbay Sarr dafa jàpp jàkkaarloog Serigne Touba ne ko yàllaa ngi yàllaa ngi te néew ko ba mu ko wax waxati ba léegi fu ñu romb kooka moom ba mu xam na ne du yàlla moom bu ko xamee noonu xamuñu loolu wóorulu moom xam bu xamee ne moom du yàlla moom daal def ne nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani lakk wa di atul abad est loolu kon nun taxut taxut mu di ko wax foofu laa gise dégg ngeen ko ba mu fabee bakkanam nafsi wa diini ak diineem jooju suma axli ak nun mooy ñoñam wala wala ak doom yam jur wa maskani ak dëkk bee mu dëkk nag ci Tuubaa lakka waddi atul abad ba mu koy dënk yàlla moom loolu sëriñ bi ndax fabu ko dënk boppam dañ ko ne damaa topp tànk bi yàlla ba ci sa biir loolu la Cheikh Rafal wax te koy dund ci yoonu murit Cheikh Rafal ngay roy damaa topp tànkub yàlla ba ma dugg ci sa biir gisuma mu génnaat noon nag buñ ko waxut ne yàlla nga it ñooña mag ña daal kooka lañ ko tegoon ndax loolu lañ wax mbaa boog ku ko jege la de ba jaxasoog moom ba kenn mënu leen a tàggale nag waaw kenn mënu leen a tàggale kon nañu dollee góorlu ci ak taalibe rek te liggéeyali sëriñ bi te ko ñaari ñeenti mimi yi nañu moytandu ko yatt yi dund benn bi murid mariirandoo mërëb-rëbi mër lépp ñeenti xaaj la ci ñu ngi ci bàmba ji murid day doon murid saadix foo jëm kër sëñ ba foo jóge kër sëñ ba looy def ci sa àdduna lépp bàyyil xel sëñ mariirandoo kër sëriñ ba xumb mun a fa jalañ màggal gi mom lañuy jëk xam bu màggal gi jàllee mo delu jalam ne won marab rëb du tay ba xam fu mbir mi nek keur sëriñ bo gis mu lecc marab rebe ko la jël daayira bo gis mu dem ba am lu fa lu ci lu ci dug rek marab rebe da du tay ba xam mbir mi nak la mer jëmut da nan señ di way sama sëriñ señ ab doy sama sëriñ sañ ab sama ab sama sëriñ waye ba ko gëjee gis ak lay kenn xamuko day wayang wayang ci biir nit ñi rek ngir bëgg bu faatoo ñu jullee ko waaye njëbbal ga du dara xam nañ ne ko jébbalu boo faatoo kenn du la jullee kenn du la boole ci gaañu baax ni moom mu dem jébbalu waaye jëriñul sëñ bi dara kooku mooy mër mënta doggu dara mbaa mu tàmbali dara ba mu àgg gis ngeen ku ngeen fi gis nag ci jamono jii nag ku ngeen fi gis nag muy dox ba ne ñëpp yërëm ko daa lu sëriñ bi gis nga képp koo gis mu bari li muy sànq toog a gisaaneelu naan fan yi sama lépp daa taxaw daa faalewut sëñ bi rek bés bu liggéeyali sëñ bi loola dañ te bés bu ñu jógee fas yéene liggéeyali sëriñ tuubaa leen léegi nu xam loolu xanaa xamuñu ne sëñ bee mën xërëm jaja yoroog naba yoro askinoog xal naati roog nooru tamte ju ay jinne kakku na ko kalira ko du ay jinne askiino xarnaate rek nooru tamtiir ñooñu ay jinne lañ jinne yu ëpp doole jinne yi ngeen di gis la waaye sëñ bee leen jommal ba dañoo defar jébbalu ci sëñ bi waaw ka xam ne mooy def loola te te nag sëñ Touba dem na gànnaar sërif yi xool xamuñu lu ñu gënalee sëñ Touba ñu jàpp wenn nag woo xam ne dañ koo rey nag wu jigéen bàyyi fa doom ji doom ji daw di yuuxu sëñ bi ne tën na ana kii lu muy wax nii ñu ko xam ndey xanaa ndey ji nga xam ne dañ koo lor ngir bëgg la koo ganale tam mu xool gisatu ndey ji moo tax muy def nii sëñ bi ne defar nañ ko ñu ne ko waa ñi ngi ciy defar de mu ne waa bu leen tàggale bopp bi ak tànk yi ak der gi ñu fees nag wa bay tànk ya ak bopp baak lépp ca der ga taxañ ko indi fi sëñ bi sëñ bi waa tegal leen ma ko foofu yi ñu tegal ko ko foofee ñu añ ca reer ca xëy gis nag way nampalaat doom jëfam taxaw waaw loolu jëfi kan la jëfi kan la ah mu ngoog léegi kon dafa am lo xamné li té nak nañu bayyi xel né sëriñ bi dafa dëkkil ñu bari ay domam dëkkil ñu bari nañu bayyi xel lool sëriñ si ah, ah dañoo dëkkil ñu bari seeni dom dëkkil ñu bari ñu bari nak fi nii mëna la ci wax ab lim bu bari ku ñu wax jeng jeng sëriñ Abdoul Mbacké moko ko nako togal fi man mu tok fi mom ba ni Cheikh Laat dem 1989 jeng mu ngi fi fi may wax ak yow mu ngi fi man ki sama bay top ci mom seigne Basirou fay mi nga xamne seigne Amdi fay sama wajur mo top ci mom dafa faatu ba ñu defar ko ba nopi dem ci seigne Modou mustapha ne ko Basirou fay seigne Basirou fay da wàcc bu liggey seigne Modou mustapha ne seigne Basirou fay mu ne wa seigne Modou mustapha dal di jël ñaan gi ñaan ko demal soti ko ko ñi fab ñaan gi ñew soti ko sama woy jur man ki nga xamne ne sëñ Fay mi nga xamne ne sama mbaay moo topp ci mom bañ ko ko soti rek mu ne bër bër bër bër jërëjëf sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Tuubaa daal di jog top daw jéeg la salum xol la jamono sëñ bu nu saaba legi ak ci ak magalam jogi ni daw la bu legi rek nu ko dekil ah? salum salum ñaari salum salum yi nga xamne ño ci ci salum kenn di ñuy ay wëlëre kenn ka dafa faatu woon bàyyi fa kenn ka ka faatu nag ay doomam jóge foofee toxu si Touba ndax dañoo doon ay tut tànk saalum saalum ba fa des nag xamatut fu doom yooyu ne te am na ci koo xam ne turandoom la saa bu xëyee julli fajar boobu jamono yi sëñ Fallou la saa bu xëyee julli fajar daal di ne sëñ Fallou xaw ma yaa ngi may déggam déedéet waaye maa ngi lay ñaan sama turandoo xamatuma fu mu ne léegi nag toxu si naa Mbàkke waaye xamatuma fu mu ne tutubal ne de seigne sëñ Fallu won mako xawma yang may degam déet sa bu julle fajar rek wax ko am benn bis bo xamne ne ak waxambaane daa ñëw sëñ Fallu na ko sëñ Fallu man day dama bëgg nga ñaanal ma am soxna ba ma taxu see tuba ak legi awu soxna seigne Fallu dugal loxam ci biir poos ba ñaan tufli ci juroom yi nako am dugal fi wacc mbacke ko jëk a dajal rek jappal sa soxna ngo waji dugg na cipp mbacke gis xalé bu jigen bu jëm ci marché mu ko ko yow sama soxna nga xale bi japp na day kaf waa ne ko sama soxna nga sëñ Fallou ma jox juróom yi neena na koo jëkka jël mooy sa soxna duma la bàyyi kat coow la bari am ku dikk na ko kii gannaaw sëñ Fallou ko wax lii àndal ak moom dem ci sa baay mu ànd ak xale bu jigéen bi ñëw ci baayam xale bi ne ko bi ne ko ki nga téye ci loxo nag mu ne ko daf maa téye ne may soxnaam mu ne ko noo tudd mu ne ko diw laa tudd mu ko foo dëkk mu ko Touba mu ko Touba nga dëkk ko waaw waaye nag Saalum lan dëkkoon ndëkkete turandoo bay Bala bay bi ne ko noo tudd mu ne ko diw muy tudd wi baayam tudd ni mu tudd mu ne ko foo dëkkoon mu ko Saalum mu ko kuy sa mu tudd wala rem ba faatu woon mu daal di ki ci loxo bi wuti sëñ Fallou ba mu ñëwee ba ci gi gis gi gaa yi bëgg koo téye mu ne sëñ Fallu laa jëm kii duma ko bàyyi am na soxna waaye sëñ Fallu laa jëm coow la bari ñoo bokk ci sañ Fallu ba mu demee ba jub sëñ Fallu sëñ Fallu fi mu fi mu jaaxande ci pliant bi dafa jékki-jékki rek daal di wàcc pliant boobu da daan da daan da daan fu la neex jëm ba mu woccee rek waa ji wut si ko mu ko waaye yaa ko ñaanal mu ngoog waaw ah, kon jeex na kon jeex na mu ngi dund kon jeex na mu ngoog waaw ñii ñii ñii kay sëñ Touba ñi mu yelif xool leen nga xam ne bu ci kenn ñëwoon jamono lépp sotti sëñ Afiya Mbàkke mi nga xam ne mooy maami sëñ bii ku ma doxe sëñ Touba fi kanam kabbar masta am Cheikh Rafal mosu ko sëñ Afiya képp la sëñ Touba daan doxal fi kanamam mu jiite mbooloo mi sëñ Afiya képp jiite sëñ Touba daan ko de motax bi Serigne Saliou Mbacke jiiteloo serigne Moustapha Sy Al sam xel da samam xel man da dem ci loola serigne Afia kep la Serigne Touba dan fa mu dox ci kanam Serigne Touba jité mbolo mi serigne Afia moy mama mom bi koku bu ñewon jamono mom kep jamono sotti mam Cheikh ante bu ñewon jamono mom kep jamono sotti. maam Cerno Ibra Faati bu ñëwoon jamono moom képp jamono sotti sëñ ma ndumbe noonu sëñ ma sàmba noonu waaw ku yëlif gaa toll nii kenn ku ne àgg ci boroomam man li man ci digganteem ak boroomam ku leen yëlif loo doon lu kenn man ta xam nañu góor góorgóorlu ci ak taalibe bi guddi na noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla na nu yàlla dimbale man nag la ma leen waxoon rek laa yor ba tey man daal damaa xamut leneen lu dul Serigne Touba Cheikh ma faal gaañi nak lélé nga gis ño xamné dañuy bëgg bëtt ñu jall ci jërëm lénen waye man xawma lénen man señ touba la xam Cheikh rafa la xam ab docteur musuma tim señ bi poste am ba ma ba légui señ touba way fa man suma ma dama nan luma dal rek da la neex jeexal na ca damay wax itam ne luma ñak rek da la neex ndax sama xol bi jeex nga ci man seey nga ba amatu mu benen xol fi ni mënatu tu dar luma saf ci aduna lu sëñ Tuubaa am fi ni lu loy wax ak man lu dul sëriñ bi sappi nga ma ya ko yegul man lool lay dund man li werti wóor it ab bu ne gis la nga woyofal bi masla lan masla nak fi lan ko fek masla fi lañ ko fekk waye man dama bëgg ko xamne ki dafa dafa jublu sëriñ bi te muy dëgg ci yow nga di ko dund te muy dëgg ci yow man lool la bëgg lool nak ku ko def ku nekk li may wax ci yow dana jeex ci yow tak bëgg sëriñ bi te mu jeex ci yow te mu ba jeex ci tak yi may bëgg lim dana jeex ci yow moy sikki sakka dana jeex ci yow sikki sakka reuy ñak yar ñak teggine iñaan dégg di ndigal diis bew nay soxor moy cnn wax lu nekkul dof tayel wor njistal bon xol ngot do fekk liggey ndigal sis yep day den ci yow ku ci yor ben bu nek rek xamal ne da nga den ak gaay rek nan señ bi waye dese nga bari motax kenn mën ta fexé fexé fexé fexé man ba duggal ko ci sama xol dama ko ci génnee xamné Iblis ko mom ma bako mom sama dongo yi nga sama taalibe yi ngay gis ñu jébbalu ci man boo ñëwoon léegi fekk ma ak ñoom doo da jàpp ne ay doomi bajan lañ man kenn du ma rang dama lank loolu bés bii nga gis may def li muy réy réy dañ may wér gaa yaa ngi ku ma ci soxla da may wér ba gis ma ci biir nit ñi laay dugg di liggéey ak ñoom lan moo waral loolu mooy bëgg gi ma bëgg sëñ tubaa daa tax ma bëgg murit yi ba murit fu mu nekk fu nekk damay bëgg a dem xool fa mu nekk ak la mu nekkee motax may dugg ci dal yi di barek mourid yi bëgg sëñ Touba rek la bëgg man motax awma ci ñom sago fu ñu nekk dama leen di fekki motax lay la gaay defaru dal waye ba may jóg bàyyi leen fa duma ko tay sëñ bi rek mom la mom lay dund man lool na ñëpp xam itam man talibim Touba rek la sumay wax ay yeen nak di wax ak yeen ba andi lo xamne yefi aduna la waxna ko na magawa ma gaaw a fi suuf mbaan ngeen faji mbaan ngeen faji ma te jublu señ bi rek señ bi rek li la bëggal dama bama fi naan tambali leen ab lay sama yene moy nañu liggéeyal señ Touba li li sama yene xamna naa ne bu ñu liggéeyal señ Touba dëkk bi dana ko seen dëkk nak soppé ko na señ Touba nak dik na Cheikh ibrahim dik na yene ci des kenn tut loolu xasida sëñ Touba yi fu muy jib ak sikkar si sëñ Touba ak Cheikh Ibra Fall dikk na la ngay xam la nga xam ne ku ko def mucc nga yéen a nga ca mooy dajale addiya yot yóbbu tuubaa jox ki nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba def ngeen ko loolu nag ku ko def ku nekk mucc nga nañu fexe nag la ca des mooy la sëñ Moussa Ka wax bu mu nu dal sëñ Moussa Ka def ne su ngeen demee Touba niroog waa Touba bu ngeen dellusee ci réew mi niroog ko kaw loolu yàlla mu nu yàlla na sëñ Touba dimbale ci barkeb sëñ tubaab maam Cheikh Ibrahima ba ñu gën a dooni taalibe sëriñ bi noo ngi